Oui, madame, comme vous l'avez dit, nous sommes ici à Fatick pour manifester le décès de notre frère Lamine, connu sous le nom de Lamino. Après tout, on est des jeunes. C'est pas pour rien que nous sommes déplacés de Dakar à Fatick, quittant 2 heures du matin jusqu'à aboutir à Fatick à un temps de 6 heures. Là, vous savez que les choses sont complexes. Lamino est un jeune frère. Euh, est un ami. Après tout aussi c'est quelqu'un qui a des droits et la manière dont sa mort s'est passée euh, nous foudroie le cœur c'est pour cela qu'on s'est déplacé de Fatick de Dakar à Fatick pour en quelque sorte rendre justice pour l'instant aucune manifestation ne sera faite nous bon de notre côté nous en tant qu'étudiants mais par contre par ce point de presse euh, par appel aussi aux forces de l'ordre. Parce que s'ils ont eu le courage, s'ils étaient censés protéger les gens, s'ils étaient censés protéger nos jeunes en faisant appliquer les lois, cette conférence n'aura pas lieu. Aujourd'hui, on rend justice à notre frère Lamino par cette conférence de presse. Parce que euh, c'est trop, trop c'est trop. Des forces de l'ordre qui sont censées nous défendre abusent d'une personne arrêté, au lieu de l'amener au commissariat de police, il l'amène à la mer pour être tabassé. C'est une chose que nous déplorons. Et à travers cette conférence de presse, nous tenons en quelque sorte de rendre justice à notre frère Lamino. C'est la, la, raison qui nous a poussé à nous déplacer de Dakar à pour contester ce Si les témoignages sont pleins, ça devient foutu. Si les témoignages sont pleins. C'est en quelque sorte une preuve. L'ensemble des gens, ainsi que l'ensemble des personnes qui ont participé à cet incendie, euh, à, cette, euh, à cet incident, on bien dit que ce jeune a été emmené en mer et a été très bien tabassé par des, par policiers. En tout cas, ça c'est un cri de cœur pour toute la jeunesse faticoise. je pense que c'est une pour, pour, toute la région de Fatick. Hier, on pleurait un problème de développement. Aujourd'hui, c'est un meurtre. De, demain, quand sera-t-il de la situation de Fatick? Quand sera-t-il de cette situation? En toute franchise, nous déplorons ce fait. Nous déplorons nous et nous nous allons mener ce combat jusqu'à notre dernier souffle. Euh, et pour cela aussi, nous demandons au procureur euh, de faire une autorisation d'autopsie pour que justice soit faite pour notre frère Lamino. comme ni ngeen ko ni ngeen ko gisee rek parce que du ma ne ni ngeen ko fekk ni ngeen ko fekkee rek la laay wax parce que gis nañ ne xale la euh, dañ ko ñëw fekk je me dis ko tooñ parce que police ku mu jàpp dalaa mën a yóbbu commissariat ba mu yóbbu la we mais waru laa mën a yóbbu géej dóor la acte boobu dañ koy dañ ko condamné acte bu ñaaw la te acte boobu ànd si ànd te lépp lu mun def ba justice boo am dina ko def ba indi autopsie bi ñu woon ne carrément xale bi ñu policiers yi ñoo ko jàpp ñoo ko dóor ba ñoo ñoo ko rey waaw te loolu moom duñ si duñ si dellu ginnaaw pour l'instant comme ni ñu koy parce que dañoo ñëw am toog parce que ñu parce am na ay manifestation yoo xam ne ñun yëguñ kon duñ tamit dañoo wax dañu di génnewuñ di génnewuñ lycée génnewuñ CEM génnewuñ teen dañoo ñëw taxaw dañuy wax ak euh, dañuy dañuy wax ak euh, yi wax ak rajo yi ñëpp ñu dégg ñu wax sans violence peut-être ñun am nañ majorité boo xam ne suñu suñu euh, ñu toll lenn duñ def duñ joué lenn ak violence léegi nag loo gis nag am na plan A am na plan B plan A bi ñun ñu ñu doowu ñëw moom la ñu appliqué nii puis ñu mel leen beneen délai bu indi ko ñu dem dañu def plan suñu plan B waaw bala ma dund wax parce que dem nit ku nekk lu la bett mën la parce que tamit mënuñ gis rey xale bu ndaw ni nga reyee ko nii de sànq nit ñi taxaw di xoole parce que amaana ñun suñu ci fekkoon sax dinañ mën a temporiser nit a waxtaan ak ñoom nii nii dañoo def képp koo xam ne euh, bokk nga si que ça nga dëkk nga dëkk Fatick ñu ngi ñaan nga violence bi nga bàyyi ko ñu ngi lay ñaan violence bi nga bàyyi ko ñu leen ñaan ñëpp ñu dal ñu déglu si ndax dëkk bi am na loi ndax dëkk bi newul na ñun ñoo jóg fajal suñu bopp mais leen loolee autopsie na am ñu génne carrément génne ko publié ko ñu ne xale bi policier ñoo ko rey après ñu topp ñooñu ñooñu ba daal leen ñu simbi ñu daal waa Fatick loolu la ñuy laaj jeunes yi Fatick loolu la ñuy laaj mais laaj benn violence laaj ñu benn dal ñu déglu yoon li mu wax rek ñun nañu ñu ànd moom